waaye ñaanee ko baax sunu jàmbaar ji di sëriñ Cheikh Jëm mi sunu bunt ci maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan sunu borom mu dolli ko fa yàggal bu baax a baax a baax te wéral ko ba naalam lépp mu yeggale ko ba sumb leneen tañ fekk ko di ziar baax mboolem sëti sëriñ Touba yëpp nag ak mboolem seexi sëriñ Touba yëpp ak mboolem taalibe di ñaan sunu borom euh, mu dool leen a kàttanal te wéral leen ba seeni naal yëpp mu ñu yeggale ko di ziar bu baax a baax a baax a baax tam mboolem mbokk yi nga xam ne dañuy topp saa su nekk ci seen euh, site internet bi di mu Mouride ci jotaay bu am solo bii di jotaayu mag ñi ñu dippe ko maam Cheikh Ibrahima Fall baay bu murid diine nga xam ne eh, ci la ñu fas yéenee waxtaan mag ñi nga xam ne moo leen yar ci loxol boppam ak mboolem ñi àndoon ak moom ci liggéey bu tedd bii mu doon liggéeyal ku tedd ki di Serigne Touba Cheikhoul Khadim eh, di leen jaajëfal bu baax a baax di wax ne nag eh, ngeen di wéy di abonné ci site bi ndax di ngeen ci mën a gindiku di ngeen ci mën a di ngeen ci mën a jàngi lu baree baree bari ci xam mag ñi àndoon ak maam Cheikh Ibrahima Fall Babu Mouridina ndax mag ñi xam leen dafa am solo ndax euh, yonent bi sallallahu daana wax ne euh, euh, daana wax ne saxaaba yi ñooy ñooy ñooy seen bàyyi ci ci diine te itam kon dafay mel ne mag ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo àndoon ak maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom it ñooy sunuy bàyyi ci yoonu murit ci yoon wi ndax ñoo ñu mag ba pare itam di suñuy jëwriñ e, di suñuy kilifa jàngal nu lu baree bare baree baree bari e, ci dundu maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina ci loo xam ne jëflan jëflante nañ ko ak moom e, tey ji ne xam ngeen ne ñu ngi ci weeru safar nag ci weeru màgg wi nga xam ne weer la woo xam ne ku tedd ki sunu yaakaar Serigne Touba Cheikhul Khadim mu ci génnoon liggéeyee boroomam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy mission boo xamante ne bii ku tedd ki Serigne Touba. Euh, wax na ne li ko taxoon a jug bu du woon a sàmm farata yàlla ak du na sunna Seydina Muhammad du fanaan ci àddina génn guddi waaye xam ngeen ne keroog bi muy jógee Mbàkke Bari Jolof di di di di di di dem ci tukki bi euh, tubaab yi convoqué ko Ndar ngir euh, li nga xam ne doon na ko woote te mooy lislaam di diine te mu wéetoon ci lool nag wéetoon ci mooy Sëñ Tuubaa da koo fesal ba àddina bépp xam ko Euh, donte nag xëy na ñàkkul ñoo xam ne sax doon nañ ko woote waaye nag fësal gi moom ci ku tedd ki lañ ko xamee woon ndax euh, Baye Ibrahima wax na ne eh, kii dem li li tax mu dem moo ko wax waaye ki fi desit li ko fi bàyyi moo ko wax kon la tax ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim dem eh, damay wax saa su nekk ci ne eh, keroog bi muy dem ci géej gi borom Touba xam na ne tubaab yii ay pexe lañ nal ci moom waaye dafa woon sun borom na ko téel ma sama nguur ba ma faatu sama bët lu mu tegu sama fit àttan na ko juróom-ñetti at yu manqué ñetti weer yi nga xam ne ku tedd ki def na ko ci géej gi eh, kenn musta gis ci àddina fu ñu bind wala kenn ku nettali ne sëñ Tuubaa soxlaal na tubaab bi dara waxoon na ko ne ko say bokk ngi ànd ak yow dinaa fi bàyyi samay bokk ànd yow juróom-ñetti at yu manqué ñetti weer du ma ne la kañ laay dëpp du ma ne la foo ma jëmee loo ma sant ma de bañ lu ma yàlla sant ma def ko waxtu jot naa ko julli du ma lekk ci li ngay lekk du ma naan ci li ngay naan du ma yóbbaale ak lekk loolu la sëñ tubaa doxee ak tubaab bi ba dellu siwaat soxlaalu ko dara ba mu ñëwee la mu taxaw wax mooy jéggal naa ñëpp kon kii moo gore mu tax kooku nag euh, jàmbar ji nga xam ne mooy borom jotaay bi di maam Cheikh Ibrahima Fall ak mag ñi ko toppoon euh, ku ne xam na ne euh, tukkib sëñ tubaa bi Cheikh Ibrahima da cee feeñ feeñ koo xam ne dafa mat a waxtaane ba àddina bépp xam ko benn mooy maam Cheikh Ibrahima Fall moo gunge sëriñ bi loolu histoire nettali na ko keroog bi sëñ tubaa yi dem fii ci ndakaaru ki mujj waxal mooy Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina moo ko gunge fii bàyyi ko ndar ba sëñ bi embarqué ba mu ko xasee gunge ba mu demit Cheikh Ibrahima Fall deñut saa su nekk ci di dox ak gëstu ci mbiri sëriñ bi ci diggante bi sëriñ bi nekkee Gabon euh, loolu tax na sax ba danaa ci nettali tuuti rek ndax euh, xam naa waxtaan wi tey dama ko bëgg a jël rek ci njabatuk maam Cheikh ibrahim Fall ni waajale magal ndax comme mag ñi la ñuy te yexsi nañ ci wàccaayu magal ndax talata bi di ñew inshallah allah bi ci top moy doon bisu magal Touba kon nak ñi ngi ci biir safar bi ñu wara waxtane naka la njabatuk maam Cheikh ibrahim Fall di waajale magal waye bala bobit ma wax len sunu wajoju di si Cheikh ibrahim Fall ban taxaway la amon ci tukki sëñ bi ndax tukki bi lañuy magal sëñ Moussa Ka nee budu bu demam gi kon wolof nasaran, te kon billahi ñëpp dem niiraan kon li xettali noonu li tax nu am ndam li tax nuy bàkk li tax nuy noos ku tedd ki moo nu ko ti Serigne Touba Cheikhul Khadim di maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne amul yenn yitte ci adina lu may joxuñu sëriñ bi keroog ba ku tedd ki dem ndax nañ bayi xel na Cheikh Ibrahima jiitu sëñ bi ndar def na fa diir ku baax ki door a ba muy di demit fa la ko la ca Touba jublu woon moi dama wax sa su nek ne Cheikh Ibra Fall marketing serigne bi la marketinam la manam ci misal moy boy jaay sa marchandise te bëgg la ngay jaay jar da ngay dem ci mbedd ma am mbolo wala marché ba nga tafa say tableau publicité li ngay jaay Cheikh Ibra Fall moy mourid bi serigne Touba ñeek defar ba mel na ko gën na ko gënal mu yabal ko ndar cëppel ko ci biir njaxasu nit ñooñu nga xam ñi ngi fa di ay kilifa di ay gouverneur di ay euh, sunu borom dogal itam Cheikh ibrahim dox ndar lu yaatu ku tedd gi fekk ko fa ba génnaat bàyyi ko ndar jaxasoo gi mu jaxasoo doomi ndar yi jaxasoo ko autorité yi nekkoon ndar looloo tax sax mu am mu mën a am euh, pexe ngir bu sëriñ bi waree dellu siwaat mu mën a fexe ba sëriñ bi ñibbisi euh, ndax firnde li mooy autorisation bi jëlee sëñ Tuubaa Gabon mag wax nañ ne Cheikh Ibra la ko indi am na ci bopp sax wax nañ dëkk bi ñu wax Kaaya kaaya ñu bari xam nañ ko fa la ko yóbbul autorisation boobu loolu nag da koo lijjante ci tubaab yi eh, ñi nga xam ne amoon na ak ñoom kóllëre ba loola sotti ndax eh, Baye Ibrahima Thiam nee na bi nga xam ne Cheikh Ibra Fall nekk na ndar te ku baax ki dem ci tukki bi yàlla dogal muy bay ay lujum ci tasineer gànjool muy dugg si biir ndar ñi di ko jaay tubaab bi ko génne woon dem na ba eh, amoon tawat soo xam ne dañ ko ne lujum yi ngay lekk de xaw ma fu mu bàyyi ko waaye muy wéral sa tawat bi mu laajee ñu ne ko ki nga génne woon fii daal sancal ko jaara tasineer mooy Baye Fall boobu muy Cheikh Ibra moom moo koy bay mu dem ci maam Cheikh Ibrahima Fall yendu jël ko wax nañ ne dafa mujjoon def fa weekend boo xam ne samedi ak dimanche bu jot mu nekk fa euh, dem na ba yegg sax ci ne dañ ko ne mënatoo am doom bi mu dikkee ci Cheikh Ibra maam Cheikh ne ko danaa la ñaanal ci barkeb ki ngeen génn nga am doom danaa la ci barkeb ki ngeen génn nga am doom wax nañ ne doom jëm njëkk am maam Cheikh Ibrahima Fall la ko tudde loolu ngay dégg ñu naan gouverneur tubaab tudde woon na maam Cheikh Ibrahima Fall doom ca Ndar loolu archive indi na ko bi nga xamante ni bi itam euh, Carpo dem na ba soxla maire bi Baye Ibrahima Thiam ne dafa dikk fi Cheikh Ibra na ko damay campagne te xam naa sa yitte jëpp mooy xam fu sa sang ba toll booba ku baax kaa ngi gamoo te kenn xamul ci sëñ bi dara mu ne ko soo ma jàppalee ba ma gàñee campagne bi danaa la fexe ba lijjantil xam la ki indil la dossier yu lay xamal yu lay xamal fi ku baax ki toll Cheikh Ibra Fall jël ku ñuy wax Mor Fall Fari boole ko tubaab bi mu di ko campagne le ba mu yàgg tubaab bi dellusi fi Cheikh Ibra ne ko Mor Fari de baax na loolu waaye daal maam Cheikh naa Mor Fall debbo dégg naa muy làkk waaye xamul muy làkk ñu ko amum ah, de moom daa mel ne dégg na tubaab ñu boole ko kon ñaar ñooñ ñoo campagne le Carpot eh, ba mu bi bi loola amee comme tubaab du woor mu daal di ci maam Cheikh daal di nag ne ko nag comme lan la lañ waxante woon maa yow am na mag ñi sax wax nañ ne ma dikkoon na fi Cheikh Ibra yoon waxam daf ko ne man kat faal gisuma mbooloo moom ay booleel ndax ñaar rek nga ma booleel te man jàpp mu ne ñii mën nañ ma tax a gañe maam Cheikh ne la bu la ne ko bu kenn wuteelul xobi garab yi ci ndar laay def ay carte def ko ci kees laay soppi ay carte def ko ci kees nga gañe carpo moom maam Cheikh Ibrahima Fall keroog moo financé élection moo ko taxaw itam ci Mor ak Mor Fall ñoom ko booleeloon ba loola amee mu gagné maire bi daal di dem nag seet dossier yooyu xamal ne ku tedd kàngi ga moom mu indi ko maam Cheikh ibrahim Fall Baye Ibrahima Thiam nee na keroog bi Cheikh ibrahim bi muy ñëw ci maam Cheikh mi ngi fekk mu toog Cheikh man Diop sëñ Modou gay Maro sëñ Modou gay Banda ku ñu wax sëñ Baye Seck maam Cheikh ibrahim Fall jàng lettre ba jox ko Cheikh man Diop mu jàng mu jox sëñ Modou gay Maro mu jàng mu jox sëñ Modou gay Banda mu jàng wax na ne sëñ Baye Seck daal ba mu ci jotee da ko daal di sàq mi war na ko Cheikh Fall nag Babacar Seck lettre bi sëñ Bam bi nga lekk te noppee gu ma ca waaye wax nañ ne ay fan nañ ca teg mu faatu maam Cheikh Ibrahima Fall nag daal di jël Abdoulaye Ndour ak ku ñuy wax sëñ Ibrahima Basel dëkkoon fii ci Ndakaaru ak Serigne Fallou Fall ba yabal leen gamoo ñu fekk fa ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim at moomee la ko sancal fii ci Lambinaas mooy fii palais bi nekk tey kër ngir bëgg bu sëñ Touba wàccee du tumuranke fu mu nekk Cheikh Ibrahima Fall nag keroog bi yàlla dogalee mu yëg ne ku tedd kaa ngi ñëw muy le 11 mars 1902 wax naa ne bi mu koy gunge ci tukki bi Cheikh Ibrahima Euh, xam nga moom daa mos ta gëm ne ku baax kee maanaam tubaab yi yóbbu sëriñ bi Baye ci am ne suñ masaana waxtaan ci ndar ba yegg ci si ne tubaab yi ngay jaxasoo faal teñ jël sa sëriñ bi dañ koy sànk nga yow nag foo toll di jëflanteeg ñoom daf leen naa ah, doom da ngeen a juum de Cheikh Rafal nee na sëñ Bamba yóbbu tubaab ci géej waa tubaab yóbbuwuñ ko nee na fu mu bëggute dem kenn du ko fa yóbbu moo tax bis ku baax ki demee maam Cheikh moom xel mu dal la ci àndul kenn du dégg fenn ñu ne benn bur yu Baye Fall yi def nañ ko wala maam Cheikh Ibrahima Fall def na benn activité wala dara lu nuru luy nuru ñaxtu wala doxu ñaxtu ci tukki señ bi dedet parce que xel mi ak xam-xam bi ak liko yalla xamal ci ku tedd gi taxna xelam da dal ci ne xamne señ bamba nee na fa mbugg tamit kenn ko fa yóbbu te boo jàngee taarix di nga xamne señ touba sakku ngir ñaan yalla ànd ak tubaab bi genn parce que señ Moussa ke bu ak demam gi kon wolof nasaran te kon billahi ñepp dem niiraan ni kon euh, tukki bi mo sabab lepp tay motax motax ñuy nos li fi am lepp tukki señ be ko sabab euh, Cheikh Ibra Fall nag waxoon na ko ne ko Mbàkke maa gëm sa dem gëm sa dellu si Mbàkke maa gëm sa dem gëm sa dellu si kon xam na li xew moo tax bi sëñ Touba ñibbisee nag maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko tertu fekk jëndal na ko kër fii ci Laminaas daal di ko koy dalal ko fa nag wàcce ko fa fekk booba euh, loolu it mag ñee ko nettali nee nañ keroog tertu ba xumu na loolu am na ci photo boobu sax boo gisee 1902 doon sa am Cheikh ma ngi ko photo woo foofu ci port bi ànd ceeg Blaise Diagne ak ñoom Ngalandou juuf ak mag ñi nga xam ne ñoom la woon ndax booba Cheikh Ibra Fall yéeg na ne sëñ baa ngi ñëw mu taxaw ngir di ko teertu sëñ mu saaka nee na keroog bi sëñ bu wàccee daf ko teg ci gannaawam ndawam moom Laminas Laminas mooy fii pale bi nekk tey lu ko ëpp sax li ko wër lépp ca la bokkoon sans dogal nag euh, maam Cheikh Ibrahima Fall baay bi muuri diina eh, nag def yitte ci màggal gi nga xam ne ku tedd ki moo waxoon ne su dikkee te su dikkatee nañ ma ci santale sans borom Cheikh Ibra Fall mas naa wax ne ndigali sëñ Bamba yi de ñaari yii muy màggal gi ak jumaa ji Cheikh Ibra Fall nee na lu ñu leen ci sant bu ngeen ko mënee na ko def bu ko mën na ngeen ko jéem waaw mag ñee ma ko wax de nee nañ Cheikh Ibra Fall ne ndigaleel sëñ Bamba yi ñaar muy màggal gi ak jumaa ji Cheikh Ibra Fall ne lu leen ci sant bu ko mënee na ngeen ko def bu ngeen ko mën na ngeen ko jéem moo tax mboolem jabatug maam Cheikh Ibrahima Fall mboolem seex yi maam Cheikh Ibrahima Fall mboolem taalibe yi su màggal jotee ñoom na dafa am na ñuy màggale ni ñuy màggale mooy dañuy waajal nag yi ak gàtt yi ak ganaar yi yobul ki fi nekkal Serigne Touba Cheikhul Khadim ngir gan yi ñew fi mom mana ndax magal gi bernde la ñu man leen ci berndeel ba nopi ñu soor door a nag saña wuti ñom luñu magalé ñun sañu ñoo yew nak mba ganar ñun Cheikh nak la wax de sañu ko lu dañu jël li serigne bi wara magalé bu yobul ko ko ba nopi doora a magal nak ndax Cheikh Ibra Fall kat bala muy def dara ci kërëm day fekk serigne bi def ba nopi fu serigne bi defé sax bu amul man nako ndax sëñ bi moom ku mu def defaaleel la waaye ñun bala ñuy jéem a def dara dañuy jël lañ war a màggale la ku tedd ki war a màggale yóbbul ko ba moo tax Serigne Cheikh jëm euh, xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall fii may wax ak yéen mu ngi dajale nag yi ak gàtt yi ak ganaar yi yóbbu ko ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa ngir lu jëm ci màggal gi nga xamante ne bii Cheikh Ibrahima Fall mooy waajal ay nagam ak i ganaaram lépp lu sëñ Tuubaa wax ne bernde la mooy ganaar ba ci gëléem maam Cheikh Ibrahima Fall di Serigne Cheikh jëm mi ngi koy wajjal ngir yobbu ko Cheikh Mouhamadou muntaha ba nopp nak door sañe nak wut lu mën a loolu mooy màggal njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ni ñi màggale ñom moy wajjal addi yi jëm ci ku tedd ki di Cheikh Mouhamadou muntaha di nag yi ak ganar yi ak gilem yi ngir Cheikh Mouhamadou muntaha mom mi serigne Touba Cheikhul Khadim te mbollem gani serigne Touba yi fekk ci Cheikh Ibra Fall wara wajjal li serigne bi ba noppi door nag sañ a wut lu màggale ci biir këram ak njabootam loolu laa doon leeral noo ngi sant bu baax tey gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala